sant bu baax a baax sunu borom mi ñu kattanal ba ñu ñëw teew julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur bu wér gërëm sunu wasila waaye gërëm leen yéen ñi nga xamante ni euh, saa su ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko nag ci maladie tëdd coppitoo hôpitaux yeeg ñi weyale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi fete ginnaaw yàlla génne leen waaye way dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i kilifa diine fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la ñaanal jàmm di la ñaanal gudd fan gu ànd ak wér kilifa aada itam naka noonu liñ leen dénk yal leen ci yàlla may ndam ba ëllëg buñ fi bàyyi ko bàyyi fi nettali bu rafet ndax fala bu de moom bàyyi ko fi day nekk euh, donc nettali bu rafet rek moo am solo te olof Njaay nee na nit ki fu mu toll sa jikko sa ginnaaw la ñu koy wax ku ko mën a dégg ne ay la yeween mën naa ne mën naa ne ci ñoom ñi nga xamante ni ñooy waa nguur gi kon yal na yàlla euh, kattanal leen ba liñ leen dénk gàcce bañ cee am benn yoon réew mi dénk leen ko ba tax na damay deseti mi noonu nuy leen képp koo xamante ni yaa ngi ko kale ki sa ngën gi télé di la 2STV maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di bàyyi xel itam ñi ngay xamante ni ñoo ñuy seetaan via les réseaux sociaux moo xam Facebook la wala Twitter en direct ngeen mën di ko seetaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm jàmm joojee yàlla na law ba fépp foo xamante ni waaye nga fi ci àdduna bi ndax xam ngeen ne sunu gars yi ñu ci bari dañuy émigré jàpp nañu ne seen wërsëg ci biti la nekk wala lool la suñu borom dogal ci ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ñaan la leen tax a génn réccu teef ban cee am waaye ànd ak lu mën a xew li daq neex te gënal leen muy ñibbisiwaat ci seenu njaboot yàlla leen ko suñu borom defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alors dellu siwaat ni ñu koy defee saa su rek fas yéene seq waxtaan ci biir kër gi euh, waxtaanee jafe yi nga xamante ni askan wi ñoo ngi koy jànkonteel wax naa leen ko bii passé ci biir kër gi la ñu delluwaat ci tuuma ak sos ak bëgg yàq nit waaye tey jii dañu delluwaat ci biir kër ji waat ne ñi nga xamante ne ay jéeg lañu tey sëy ndax ñu ci bari ci ñoom tabaarkàlla macha allah bari nañu lu ñuy jooytu ci lu jëm ci wàllu néegu sëy waaye nag am koo xamante ni itam dafa takk ndiggam rek ne defandre jigéen ñi moom ma tax a jóg ma jëli ji ko ba diwaanu Touba indi ko dama koy bàyyi ginnaaw bu ma ko nuyoo sargal ko jaajëfal ko ci disponibilité bi ak nangu gi mu nangoo ñëw fas yéene àndandoo ak ñun ci biir émission bi ñu di ko wax Serigne euh, Mourtada Gueye donay Cheikh Adama Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw ah, soxna Mbaye tubaarikàlla ñooy la koy delloo bu baax. waaw mm-hmm. ah, di nuyu soxna si bu baax. wax dëgg Nday Faye soxna Nday fay mm-hmm. ñoo ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar ñaanal jàmm ak salaam. Mm-hmm. di la gën nuyu bu baax a baax. jërëjëf tubaarkàlla macha allah. kontaan nañu yaa yaa ngi koy seddal man xamee ma la dama gis ngay dal góor ñi bu baax a baax a baax wala bu ñu demee ba ci kanam la. alhamdulilah rabbil alamin. ok bu ñu demee ba ci kanam di ngeen ci xam dara ma ànd nag ak koo xamante ne sama naataangoo bu yàgg macha allah fa tabaarkàllaaw mën naa ne ba muy xale la dugg ci milieu médiatique daanaka moo ma ci jiitu sax nag macha allah fa tabaarkàllaaw muy soxna Ndeye Faye ñëpp xam ko ci RDV ñëpp xam ko ci rajo Dunia waaye jamono yii mu samp ay banxaasam fenn dinañ ci ñëw incha allahu taala ma nuyu ko ziar ko sargal ko bàyyi ko mu nuyook mbokk yi téléspectateurs yi nday maa ngi leen nuyu la bàyyi nga nuyoog sunu gan. tey ñoo koy soto dañ koy sat soto ñun ñaar soxna Mbayang Thiam di la nuyu bu baax a baax di la ziar di mm-hmm. béggee sëñ Murtada mm-hmm. di am bégte bokk ak plateau bi waaye di nuyu bu baax a baax képp xam te ne rek mi ngi ñuy seetaan mm-hmm. comme ni nga ko waxee sànq biir réew ak bitim a jógee di leen wax laay maxtaar di nuyu waa axlu bayti rasulullah fu mu mënti nekk rek waa dén tamit di leen nuyu déeni biram ndaw déeni maaligay libaas ndiir ñu ngi lay nuyu ñuy seetaan rek ñu ngi lay di béggee ñëpp soxna Mbaye di kontaan dafa dégg nday mbokk la <laughs> sama mbokk la ñu koy yooyu lay dox laay maxtaa di ko ñaanal si barke bu tedd ba mhm. yàlla na ko defal jàmm alayhi salaam yàlla jàppale ñëpp ñi nga xam te rek ñu ngi teewlu émission bi amiin incha allahu taala damay bu ñu songee sunu gan incha allahu taala ñu séq ak moom waxtaan wu yaatu woo xamante ni du am dagg waaye nday fay ku ko xam xam ko ci milieu médiatique caméra du ko jaaxal macha allah micro du ko jaaxal nday fay ñu toog abs gisuñu ko nday foo nekkoon waaw Mbaye nga xam nga rek li ñuy wax rek li yàlla tudd si jàmm moom alaakulli àll dafay am. Mhm. Euh, depuis deux mille dix huit laa quitté RDV. Mhm. boobaak léegi nag toogoon naa tuuti. Mhm. Euh, benn laps de temps di noppaliku. jaar naa fi tamit yeneen chaîne. créé naa sama chaîne YouTube. ba instant bi nag Kouthia mu baax mi sama frère abu Bilal. Euh, Kouthia foofu ca TFM. ak bañ ko sonn gis nga bañ ko sonn baax lool. mën a jàppale jigéen. mën a jàppale lool lool doomu aadama. di ko baax ni ma kaay ñu jàpp si Kouthia bi. indi benn rubrique bu bees bu tudd Omar Réew. ma ciy mm. participer temps yi mm-hmm. ça fait juste un mois d'accord mm-hmm. donc chroniqueur nga fa waaw mais duggagoo non duggaguma man bugguma nga dugg damaa bëgg waa 2S euh, sama patron mi ngi lay seetaan mu bàyyi la xel El Hadj Ndiaye mu baax mi am nga sa place fii ñu ngi koy nuyu ak Marème Ndiaye dangaa baax te ñàkk ki ñaar sama mag ñu baax ji nga yoroon émission bu baax bu ñuy wax teral waaw ak gise bi ak gise bi mhm. nit ki ak ka mu bëgg muy giseek moom fi mu ne ku ko def fi mu ne ci yow la ko pirate dëgg la yooyu ak yeneen i bagage mi ngi ci yow wallaay nday sant sama sœur bu baax bi <laughs> kon deux heures bàyyi leen ko xel nday fay la euh, ba euh, sama sœur la macha allah laay maxtaar mhm. euh, miin milieu média lool lool lool macha allah sama yaay daf daan faral di wax bu far yombee sëgg jafe dëgg la loolu mooy li nekk waaye nag sëgg bi moom yàlla na ko yàlla yombale fii macha allah fa tabarakallah ndax am nga fi place tey nag man xam naa sa talent te ku dugg ci internet bi tàppe nday fay gis li muy def di nga xam ne du ay fo nday ñu am gan muy <laughs> euh, Serigne Mourtada Serigne Mourtada itam mbokk yi bëgg nañu xam moom mooy kan ndax nag euh, macha allah maa koy gis ci réseaux sociaux yi muy défendre jigéen ñi bu baax a baax euh, di leen taxaw di leen jàppale mhm. biir réew bitim réew fu mën a nekk moo xam Italie moo xam France mhm. moo xam Côte d'Ivoire Espagne fépp macha allah damay jo biñ déggee sax ne Mourtada laa invité jigéen ñëpp dañ ma songandoo. ne ma yéex nga ko def. <laughs> Euh, kan mooy Serigne Mourtada lañ bëgg a xam. Mhm. Mhm. Mhm. dëgg la.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 waaye nag euh, dama gis ne euh, Ndeye. Mhm. Euh, jigéen ñi ñiy jooytu bari nañu. torop sax góor ñi boo waxee ñu ne góor ñee gën a dee. donc dinañ ci xam dara ci ñi nga xamante ni dañuy jaare ci 88 628 14 13. wala 00 221 33 841 23 34. muy numéro international bi gars yi bàyyi ñu ko xel bu baax a baax. Mhm. ngir seen participation góor ñaa ngi jooy jigéen ñaa ngi jooy. Mhm. jafe-jafe bi fan la nekk ndax dafa nekk loo xamante ni. comme ni ñuy koy faral di waxee. Mhm. la temps que ma bàyyi sama invité moom soufflé tuuti xaw ma micro lañ koy defal ak yooyu. nday damay ñëw ci yow. Euh, dama gis ne euh, jigéen ñaa ngi jooy góor ñaa ngi jooy. Mhm. te bu ñu demee bay takk sëy li ñuy jëkk a wax moo ku jigéen ki mooy boo demee na nga muñ. dëgg la boo bu ñuy woo muñal amu ci. Mhm. bu ñuy xamante ñun ñaar muñal amu ci. dëgg la. booy savouré sama bànneex ci sama jëm te sëy amagul mhm. muñal amu ci dëgg la léegi ana lan moo waral euh, ñu bu ñu duggee ci néegu sëy rek mhm. bu ñu la tegee rek ne jigéen ki muñal lan moo waral loolu lu waral loolu bari na soxna Mbayang mhm. euh, mu mel ni rek comme que jigéen moom moom mooy yaay mhm. moom mooy jur mooy lépp mhm. euh, te moom mooy magasin suñu borom bi nga xam ne si lay denc ay ngëneelam euh, kon muñ yaakaar naa moom rek la war ndax yaakaar naa suñu borom subhanahu wa taala lu mu def si jàmm bi rek xam na lu tax ndax bu dee jigéen muñal ça veut dire jigéen ki moom moo ëmb lépp kon góor ki muñ bi man pour man sa ñaari côté sax yëpp la war a doon sax parce que ñaari nit bu ñu demee bay dencante ñu nekk ay woy dencante ku nekk rek rek am na jikko ba nga xamante ne rek mm. nëbboon na sa morom wala xamantewuñu wala miinantewuñu bu mm. baax kon ku nekk dafa war a muñal sa morom mm. ñu miinante bëggante ku nekk jàppe sa morom kii jàppe ko jigéen kii jàppe ko càmmiñam ba pare ñu xaritoo bu ko defee rek euh, muñ ba dafay neex si ñaari côté yëpp dafay neex si ñaari côté yëpp mm-hmm. yaakaar naa ne mu ngi noonu buntu bi ubbil nañ leen ko euh, loolu mooy yi jëkk jóge ci soxna Ndeye Faye mm-hmm. muñ ci ñaari côté yëpp la nekk mais des fois torture bi dafay nekk loo xamante ni day metti mm-hmm. ndax euh, torture boobu Serigne Mourtada góor war na koo mën a def jigéen ak ah. itam ndax bu fekkente ne dal na ci kaw jigéen ndax jigéen jooju dafa war a continuer di muñ wala déet ah, fa tabaarakalla soxna Mbayang hmm. il faut que mu nuyuwaat sama kër gi ndax daa mel ne duggut moo tax sëñ bi amoon na la mu wax léegi d'accord Euh, di nuyu sama bunt si euh, Serigne Touba Khadim Rasoul. Mhm. mooy Cheikh Adama Gueye. Mhm. mu njëkk a jébbal si Serigne Touba Khadim Rasoul. Mhm. njëkk koo jox bopp. dëgg la jaay addinaam bépp jaay addinaam bépp. dénk ko Serigne Touba Khadim Rasoul te la sax ndeysaan kooku moo njëkk a jébbal si Serigne Touba. ndekete sëtam laay dalal. ndeysaan fa tabaarikàlla di nuyu nag xalifam bu baax boobu mooy Baye Cheikh Fall Gueye. dëkk Touba Mbacke. toog fi jotaayu euh, sëñ Cheikh mat ko sëkk nag. uuf waa kër gépp yàlla na ko fi saa borom bàyyi lool. amiin kàttanal ko dooleel ko. amiin amiin fa tabaarikàlla macha allah soxna Mbayang. Mm-hmm. jigéen moom da di daa bokk ci société bi Sénégal bi. Mm-hmm. ndax jigéen. Mm-hmm. moom rek la yàlla teral. awale ko ci alxuraan. kullu ko jàng moom dana ko xam. ndax surtout rijaal moom amul fenn ci àddina surtout góor ñi. waaw kon yàlla moo ni surtout nisaa. nisaa mooy jigéen ñi. fa tabaarikàlla macha allah en fait yàlla Muhammad di fi ñëw. jigéen nag moom soo demee Inde seen aada. ku masaan am jëkkër soxna nday fay. su jëkkër ji faatoo dina jël jabar ji taal ko. Inde moom noonu daan den def. waaw su jëkkër ji faatoo dañ koy taal. Ah, soo amee jigéen su amee doom. su dee jigéen a. da ngay rus. wala nga gas ba mu xóot suul. wala nga ray ko. jigéen daaw doon. déedéet daawul doon amul doon benn valeur si àddina waaye nag bis bu ne nag bis lay xaar fa tabaarikàlla mhm. macha allah mhm. Euh, rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee dafa yëkkati jigéen mhm. siggil ko mhm. ba àddina bépp bépp xam ko mhm. fa tabarkàlla macha allah daanan wax ne nit su amee doom mën naa jël doom ji teg wax borom kër gi jëndal ma yàpp ma lekk ba suur doog a naan nampal sama doom mhm. ndax bala ngaa nàmpal da nga renforcé ba pare doog a nàmpal loolu jigéen rek la ko yàlla may mhm. dëgg la kese kese kese mu ne mu ne am na droit ne jëkkëram bala maa nàmpal xale ah, na droit <laughs> balaa nàmpal mhm. ko diw ba mu dégg ko ma yàpp ba suur doog a nàmpal doom ji soo ko deful lislaam daan ko bas ngaa gis ko nàmpal waaw moo tax kala nampal da ngay suur. da ngay suur bay bëgg a dee. su la neexee nga ne ko jox ma xaalis ma dem jënd lu ma neex doog a nampal doom ji. Ah, te lislaam da la togg jëf soo ko defut am si bàkkaar. moom kese kese kese la ko yàlla may loolu ko télé bi may nampal. tubaar fakal la gis nga ma waaw maa la wax loolu <laughs> maa la wax loolu ah, am na xare boo xam ne si rasulullah sallallahu alayhi wa xare bu metti mhm. boobu jigéen ñu ñoo doon woote force mhm. te boobu jigéen ñi suñ masaana blessé kenn jigéen ñi xuus. Mhm. indi seen mu room jigéen di leen faj te xeej yi ni leen daan rombe kon jigéen place bu góor di taxaw rek en général jigéen mën na faa taxaw. waaw parce que jigéen da di mànga siina suñ borom. waaw mànga siina suñ borom yàlla nee na juróom-ñaari màngasin arab nag su naan juróom-ñaar ñu gën a bëri lay wax moo tax mu naan juróom-ñaar juróom-ñaari màngasin waaw waaye màngasin mooy jigéen mhm. waaw jigéen waaye nag réew mi ñu nekk muy Sénégal mhm. da di réew mu doy waar mhm. réew moom si ni ñu toor xale jigéen sax daa ñaaw mm-hmm. Mm-hmm. waaw man Sénégal rek laa koy gisee Sénégal kese kese kese kese laa koy gisee mm-hmm. Sénégal laa gisee muy imaam ngay doon wala sëriñ nga wala kul kul kuy toroxal jigéen rek ndax bu leen jàpp ne xale yu góor yi ndong la nag am na ñoom si ay kilifa lañ leen di woowee mais nag jigéen ñooñu seen baat gàtt gàtt ba ragal a wax. Mhm. waaye lu ñu dund soxna Nday Faye su la ko wax nga sa loxo dal sa gémmiñ. te si réew mi la nekk. waaw fa tabaarikàlla macha allah kon daal ñu bàyyi si. te léeg-léeg koom-koom léeg-léeg nit koom-koomam. Mhm. ak euh, alalam. Mhm. dafay tax ba. dafay dafay jàppe ne nu ko neex war na koo jàppee jigéen. Mhm. maanaam pouvoir bi muy am. pouvoir bi muy am. Mhm. yow yàlla denk la jigéen. Mhm. man damay wax ne sag bi gën a neex ci góor. mooy bu euh, sa jabar génnee ñu ne jabar diwa nga ne. wallaahi mel melokaan woo xamante ne tabarkalla macha allah. mais yow li lay gën a neex mooy am naa alal. am naa daraja am naa lu ma lu ma neex. sama jabar naa ko torturer bu gé ba bu génnee. ku ko gis yéene ko ab sarax nga yaakaar ne loolu mooy sa ndam yow foo romb nag romb ak sa ñetti morso gesner yu boy yuy boy loolu la jigéen ñi dund fii ci Sénégal wallaay te ku wax nga may këb junni ñu naan diw dafa baax diw dafa baax fekk jabaram ma ngay dee ci biir kër ga mm. la muy dund euh, bu la ko waxee nga taf nga nga taf sa gémmi samba àllarba samba àllarba mm-hmm. euh, ba pare góor dëgg góor gu baax ñu ngi koy xamee mm-hmm. si si si si soxnaam mm-hmm. euh, sa jabar génn sañca ba rafet mel lu ko neex di sol yu rafet di lekk lekk gu baax képp ko gis respecté ko ko góor googu moom moo war a ndamu parce foofu lañ koy respecté moom mm-hmm, mm-hmm. mais nga ne da nga am xaalis lépp loo bëgg a faj yaa ngi koy faj di euh, faj say soxla bay fajaale soxla ñeneen te sa jabar ku ko gis yërëm ko wala bu guddi jotee mu muuru kolom kër gu nekk mu dugg fa di leb kilo ceeb bu mu euh, taali suba wala lu xale yi ndekkee loolu moom góor gu nekk war na koo moytu parce que kooku du responsable pour man waaw xam nga soxna si jigéen moom mm-hmm. macha allah fa tubaarikàlla lu mu dugg rek du mu sotti euh, xoolal ba suñu borom bindee àddina ba tey ba sa aadama lépp lu jigéen dugg du sotti. waaye duggul du sotti déedéet. mu xaaral ñu dimbali kii ci ligne bi. wax nga lu am solo mbokk asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum asalaam wa sant yàlla ba day ziar soxna si tuubi naka la. oh dagg na ñu ngi koy jéglu bu baax a baax 88 la 628 14 13 ñu mën a participer ci émission bi ànd koog euh, Serigne Mourtada Gueye euh, di sët ci Cheikh Adama Gueye mi nga xamante ni moo jëkk a gëm Serigne Touba ak soxna Ndeye fey macha allah nekk ci milieu médiatique bi ngeen mën a rotal seen xalaat jigéen boobu ak léegi lu mu lu mu bokkul baaxul. déedéet looloo waral sunu borom bi nga xamante ni taxawal na maam Adama dafa daal di fàq ca faar ga. indi liggéey ci maam Awa indi fa Awa. kooku war naa tax ñu xam ne jigéen complément la. rax ci dolli. Mm. di góor. guy faral di waxtaan ak soxnaam. Mm. ak góor goo xam ne si du faral di waxtaan ak soxnaam ñaari góor yooyu sax duñ bokk. duñ bokk déedéet. day am day am différence. parce que jigéen mm. suñ borom da koo may xel. Mm-hmm. inna kay doxul naa la alxuraan wax. Mm-hmm. seen borom moom da koo may maanaam lu mu dugg day sotti daal ci kàddar. dëgg la tey ji góor su doon waxtaan ak jabaram. Mm-hmm. ndax jigéen dafa am xel. Mm-hmm. xam nga Sénégal vraiment am na benn baat yu si doon ko war a bàyyi daal mm-hmm. naan jigéen lu seen weeni tëddee noonu la seen xel tëddee loolu da leen koy naxe rek dëgg la loolu ay nax la mm-hmm. non loolu ay fen loolu ay nax la <laughs> ah ay nax la dëgg la ah, parce que da ngay gis jigéen suñ koy muur muy dem si këram jëkkëram ñu naan ko sa suusu àjjana sa suusu àjjana mi ngi sa àjjana mi ngi sa tànk suusu borom kër. suufu tànk borom kër. waaw loolu wérut loolu ay loolu wérut. na góor yu ci abusé loolu wérut. Mhm. loolu bi jëruñuy wax sax wérut. lu tax loolu. waaw ah, kay bàyyi su ne jigéen gi àjjanaam jëkkër jee ko yore. waaw su demee sa bos leerul de. àllaaxira ñaar fa am àjjana sawara lëxraaf mm. ñett génn ko mm-hmm. amul deex amul dara loolu dañ koy ah, jëfandikoo rek mais fi ñu noppale ko mm. sawara ahonge bi lay na seytaan àjjana lëxraaf mm. mais kon jigéen ñi si gàttal dañ leen a réeral seen bopp ndax da gis di góor goo xam ne si day am soxnaam soxnaam su baax soxna soo xam si mbokk njëkk a tuural deret mm-hmm. kooku suñu borom neen mënoo koo fay ki njëkk indil doom si àddina mm-hmm. walbatiku xaw ma day commerce wala day la banque wala lu mu xaw bëgg sa avance sa avance rek yow mm-hmm. wa illaa mu dem ceenu oram wala lamu yaayam wala lamam mm-hmm. ñëw jaay ko mm-hmm. bëgg nga am looy débrouiller pour ëllëg nga mën a sotti xoolee si Macky Sall ba tey ba ko gën a suuse kuppi ko fi jigéen a la jàppale koo gis mu tardé rek dafa toroxal jigéen ndax jigéen ak muus soxna soxna mbayam kullu ku ko dee toroxal doo am jàmm yaa xam seen muus jigéen kullu ku ko dee toroxal doo am même jigéen gu jaay boppam sax soo ko toroxalee yàlla toroxal la ah. jigéen gu war di jaay boppam mm. góor ñoo toroxal ko mm. fu mën a jaar mu torox ndax li baax ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala doo ko dénk jigéen mhm. jigéen ay wasin mm-hmm. jigéen ay nàmpal jigéen day am doom doom ji judd léegi xool dënn bàyyi mu wow koŋ mm. xool dënn yaay mu fees dell ki xéwal mm-hmm. mu téew ko ni di ko nàmpal mm-hmm. waaye nag damay gis phénomène boo xam ne si góor ñi war nañ ko bàyyi kull koo xam ne si yaa ngi nàmpa sa doom. Mhm. téye ko nii. Mhm. di jooyloo sa jabar foo mën a yaar da nga alko da nga alko waaw. xam nañ loolu. téye sa doom nii di ko nàmpal walbatiku yaa xam da ngay xas sa jabar. waaw ndax am na. waaw góor dong moom xam góor moom yàlla da ko bind la. góor day xool lu bees day am lu bees léegi léegi fàttali màggat. Mhm. loolu mooy mooy baadoo lay góor. waaw te dangay ngay ànd ak moom ànd bu rafet. waaw yow sa sa jëmmi bopp yaa yëkkati sa alal. di def si moom. ba mu arrivé même boo deful ci moom alal sax jabar ji nga xamante ni jabar ji nga xamante ni dafa bàyyi ñëpp ne yow la mhm. kooku dafa jar a sagal xam nga soxna Mbaye la jural ay doom dafa jar a sagal su ma juumut xam xam na xam na ma ah, ñoo ngi doog gisante macha allah fa tabarakallah waaw am na jigéen ñi nekk Europe waaw ñoo xam Sénégal gi li ni nekk mhm. nekk ak seen i ndey mhm. nekk ak seen i am jàmm lool waaye nag góor ñi damay faral na góor ak Espagne moom wax dëgg fa yàlla lu na doy lool li ne woon jigéen soxna ah. <laughs> nag Espagne soxna si maanaam lu may faral di di jooytu daa bëri de waaw di si profité ni yow sëñ Jili sëñ Jili loo doom la sëñ Abidou Lo waaw mooy bàyyam mm-hmm. kooku moom bokk si kooku macha allah fatabarakallah ak yéen ci waaye nekk Espagne sama bos nekk Espagne mu dem génn foofu xam nga ni kii waaye ñoom dañ leen fekk Sénégal gi ñu toog mm-hmm. ak seen i ak seen i baay mm-hmm. ñu takk leen ñu bàyyi seenu sant di wuyoo seen sant baay bàyyi xarkalam yu bari yu ñu xamoon ñëw fekk si yeneen xarkanam yu si xamuñu leen ñu jël ki ci ligne bi mbokk asalaamaaleykum allo. allo waaw. waaw sama sëriñ ñu ngi lay ziar. waaye nangu leen ziar bi. tur bi ak euh, fooy wootee. man la El Hadj Abou Bilal Kouthia. Oh. oh ah Abou Bilal Abou Bilal dama lay alamaan tey jii xam naa ne sa élément laa invité moo tax nga dugg. wallaay waaw mais xam nga rek boo invité ñaari ndaanaan. ndeysaan. nga invité koo xam ne mu ngi waxtaan ci baatin ak Zahir. ndeysaan. invité koo xam ne nag ci Zahir lay yëngu waaye tamit euh, bokk ci njaboot boo xam ne ci baatin la. Mm-hmm. dëkk si dëkk boo xam ne dafa am baatin mm-hmm. di Cambérène kon yow tamit nga nekk jigéen joo xam ne wax dëgg yàlla ndeysaan ñëpp xam nañ la yow da ngay animé waaye tamit da ngay dox ci li nga xam ne moom mooy mm-hmm. fexe ba feeñal nitu baatin yi ndeysaan da nga baax euh, yàlla na la yàlla dafal jàmm amin amin amin lii nga def nii nag dafa rafet jërëjëf parce que ngay ndaanaan animation mm-hmm. jël ndaanaan animation kenn koo fësal pour feeñal ko ndeysaan ndey Faye moom toog lu ne def na ko ci rajo ak ci télé. barke yonent bi. bu demee ba nangu accepté ñëw biir TFM. Mm-hmm. di def chronique ci benn mm-hmm. émission. Mm-hmm. kon bu réyoon tey du ko def. dëgg la ndax koo xam ne da amoon ay deux heures de temps yoo xam ne da nga ko am ci télé. dëgg la am trois heures de temps ci rajo. dëgg la nga ñëw pour def benn revue boo xam ne matul cinq minutes. di animé par jour bu doon animatrice bu rëy danaan du ma ko def. du ma ko def dëgg la. waaye sopp ay fansam fansam yi sopp ko. bëgg mm. koo gis tew mën na koo mën suñu koo gis. yàlla def ñu ñu xamante yu yàgg. Mm. musuma wax soxla ma jigéen yoo xam ne ku ku ku ku mën a téye soxla la. dëgg la ku diñ. musuma wax ne ma Kouthia boo ma utalee wala dara man maa dem ba ci biir. Mm. dama yaakaaroon ne dafa bàyyi animation ñu ci waxtaan rek ba yàlla def. mu ne ma ba tey dama ko bëgg. ma ne ko ñëwal fii nga xam ne mooy TFM yàlla mën na laa faa feeñal. dëgg la dëgg la. ñoo koy indi nag loolu laa ko waxoon de dama ne ko. waaw man ngaa ñëw ndax nit ñi xam nañ la. Mm-hmm. àddina xam na la. Mm-hmm. xëy na fii ñu la gisee nag yàlla mën naa def ba nga feeñ feneen fu dul fii bu la fekkee fii jaral na leen ko ñoom ñu téye la. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla def waaye yow ku ñàkk ci ñaan nga. dëgg la ndeysaan ndax lii nga def tey bu la neexoon tey doo ko def. ndeysaan li ngeen di waxtaanee nag yëpp dafa mbubb nag ci li nga xam ne moom mooy daraja la. waaye maa ngi leen di xamal ne wax dëgg yàlla senegal waaw dafa am ñoo xam ne dañoo yelloo gërëm ñu mel ne yow. Mm-hmm. parce que nit bu nekkee am talent nekk fenn làkkatu nga feeñal ko. Mm-hmm. nit am xam-xam nga indi ko ci télé bi mu génn xam-xam ba dañu ciy jàng. Mm-hmm. wax dëgg yàlla yéen ay missionnaire ngeen ci suuf. Abdou Bilal kenn du yow. ak yàlla na yàlla defal jàmm. Abdou Abdou Bilal. waaw dama lay wax ne la man ak yow mosuñu gisee. defe naa benn yoon la ñu mas a feebaree. waaw. mais damay wax ne li jaar ci say loxo. te doon dara ci média tey jii du euh, bari na. te du ko wax waaw. te doo ko wax doo ko jëfee doo ko defee te ku la xool xam ne sa xol boobu dara nebu ci. ku rafet barki Seydina Mohamed loolu xam naa ko ci yow. wallaay jum jërëjëf. kontaan naa yal na la yàlla jàppale te taxaw la ma ciy nuyu nag sama xarit bi naan Serigne Fallou Mbacke transfert. Serigne Fallou Mbacke ak Mbacke transfert ak soxnaam su baax yi madame Mbacke. ndeysaan yàlla yàlla dafa jàmm. amiin amiin amiin ñooñu ay nit lu baax nañu. ndeysaan ñooñu ñu jar ñaaral lañu. yal naa leen xam yal naa leen xam. amiin amiin boo leen xamee rek xam-xam ku baax. walaay sëñ Fallou Mbacké ak madame Ba yàlla baax la. yal naa leen xam amiin. ñooñu boo leen xamee wax dëgg yàlla. Mm. ah da day màggal ga day baax na waa Belgique xam nañu ay dëkkandoo lañu alaaj xam na. ndox du taxaw ah yal na yàlla defal jàmm. allahumma amiin sa fan gudd. ndeysaan amiin amiin Mbacke ak madame Mbacke. ndeysaan ñu koy jaajëfal bu baax a baax. Euh, sëñ Mourtala gis nga fi nga tombé. Abou Bilal Koutia. allah maa ngi koy soog a dégg tey ci sama émission miinu ma ko nag sax gaa. waaye bu ma xoolee jigéen ñi ak xale yi ni mu leen di defalee formation. Euh, bu ñu toogee di tàccoog ñoom seen sax nga yaakaar yaakaar ne. kaf la wala dara fekk boobu formation lay def. formation bu dëgër te it nag xam na ne. Ndeye Faye mënut a fexe ba darajey Kouthia wàññeeku ci TFM. wallaahi wallaahi mënut a tee lu mën a xew te it fukki at ak juróom nga di ko def ci télévision di ko wax. wax dëgg yàlla boo ci xajalul kenn nag. ma xam ni dootoo doyal bu ba ngay dugg. wallaay dëgg la lu leer nga ko xam <laughs> Serigne Fallou Mbacke transitaire ak madame Mbacke. ndeysaan euh, Abou Bilal euh, Kouthia. Mhm. nee la waaye Mbayang moom tamit démb lu baax la wax si yow. ndeysaan ñu koy wax mention spéciale ñamu formé bëri na ñamu mm. jàppale bëri bëri na te du ko waxee. Mm-hmm. un million dañ ko koy may léegi mu séddale ko ak ñëpp ñi mu àndal dëgg la ba démb ci mujj ndeysaan kon nag siin yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na ko yàlla taxaw amiin macha allah fa tabarakallah taxaw képp koo xamante ni yaa ngi toogoon di ñu seetaan mm-hmm. waaye itam taxawul ñu ki nga xamante ni uh, mooy Barham Diop nekk transitaire fii ci port macha allah fa tabarakallah dama koy bàyyi ak yàlla mm-hmm. moom xam na man xam naa yàlla xam na Barham Diop transitaire yàlla na ko yàlla defal jàmm yokk ko ba mu yëg ko uh, sëñ Moutada uh, jigéen ñi nga xamante ni Euh, dañ lay jooytu man gis naa jigéen joo xamante ne xamante nga ak moom itali macha allah fa tabarakallah jafe-jafe ci wàllu sëy moom moo tax mu xamante yow parce que wax naa leen ne ci réseaux sociaux yi nga nekk ci li ngay yëngu xëy na euh, du ma ci dugg dans les détails carrément parce que émission bi du du loolu mhm. mais jooytu gu la jigéen ñuy jooytu tax na ba moom ci wàllu boppam mu takk ndiggam ne amul dootuma seetaan benn jigéen ñu sonn nga ñëwal ñu ci jooytu boobu nga xamante ne ñu ngi la koy jooytu te nga waa Espagne la <laughs> tooñ nga ñu soxna Mbaye waaw waa Espagne moom mhm. waa Espagne moom xam naa ne moom ndeysaan waaw xam nga jigéen moom ndeysaan mhm. kull ko bàyyi ndey ak bàyyam rek moom tumuraanke na ko ak mën a mhm. nekk si àddina que ça soit mën a nekk rek Aïda Diagne depuis Italie ñu ngi xam naa ne ndeysaan ku baax ndeysaan xam nga jigéen ndeysaan koo jëlee kër ndey ma kër bàyyam yóbbu ko feneen kanam gu mu miinu rek. Mhm. jaaxle am na dëgg la. te surtout góor ñooñu nekk Espagne wala Amérique sax moom <laughs> Amérique moom dafa ah, nuyu wala Seynabou Sarr. Mhm. waaw Adja Seynabou Sarr depuis Amérique moom tam ñu ngi koy nuyu bu baax di ah, soo xasee ba ñëw. Mhm. ba dégg làkk ba rek. góor ñi danaan la kër gaa ñi nii. su ma fayee ndox nga fay courant bi. ko bëgg wax te dañ ko ragal wax. parce que chaque jour ñoom ñoo ngi xool lu neex seen i jëkkër. Mm-hmm. tey ji suñu amee ku leen ko waxal dina kontaan. Mm-hmm. waaw ñooñu noonu suñu xasee ba ñëw soxna Bayang. Mm-hmm. góor ñi dana ah réew maa ngi nii. su ma fayee ndox nga fay ko la fay kër gi rek waaw te lislaam sax foofu ko fifty fifty moitié moitié waaw lislaam waxul loolu waaw loolu dañ ko bëgg dugal si bopp jigéen ñi forcé leen ko ñu def ko fra force mais jigéen su ko neexoon muy am surne un milliard jëkkëram di am surne deux cent mille mu waaw lislaam ko da nga koy wor hmm. déet ba tey moo fi nekk de jigéen goom fulu ko ne dana ko def de hmm? waaw dan ne yow muy takk soxna yaa ko war a wodd hmm. su tawatee yaa ko war a faj yaa ko war a suturaal yaa ko war a dundal yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo ba si manqué wàcc nga yoon ni dëgg la ba si wàcc wàcc nga yoon ni mais ñoom nag dañ indi ba ngi egsi ñu la kër gaa ngi nii fayal ndox mi ma fay courant bi nga joxe dépasse soo ko defut léeg-léeg ndaw see la yóbbu. waaw mhm. soo ko defut ñooñu damay sàcc di ko jàllale message bi ndax ñoom dañ ma koy jooytu lu bëri soo ko defut. dañu toog sa sambara góose. Mhm. jël seen benn téléphone. Mhm. yëkkati di waxtaan ak beneen. Euh, beneen jigéen nekk senegal soo ko defee yow ku yow ku jigéen ko soo jëlee sa téléphone du wuyu. ñu ne la da bon ndax danga am jëkkër am far. waaw te pourtant ñoo bokk àtte nag de. waaw moo tax ma ne senegal dañ fee nërmale jigéen. poids jigéen dafay wàññeeku. dafay wàññeeku lool. dafay wàññeeku parce que jigéen ñi dañ leen a seen bopp. dañu ñàkk a wóolu inna muslimina wal muslimaat. Mhm. jigéen moom lu war góor war na jigéen. Mhm. waaw mhm. muy jàng muy diplôme muy julli muy jaamu yàlla te yàlla kese moom moom masat wax ne jigéen su defee li dem àjjana. ba juróom yi wax ko góor ndax góor daa naqaree layal soxna bàyyam góor ku naqaree layal la. na ko su dee julli. waaw di woor. Mm-hmm. di añ màkk su ko manee. Mm-hmm. di ab sëram. Mm-hmm. su faatoo yàlla moo xawal àjjana ju ko neex na ko duggal. kenn du ko dindi. te góor amuloo loolu. déedéet koy jëlee. soxna Mbaye kon yàlla moo ñu a xam. maanaam maanaam yàlla daa faral jigéen sax. <laughs> ndax loolu amu si góor góor mën naa toog fi di yelloo naa yàlla du ko xool. man naa toog fi di yendoo jàng alxuraan yàlla da ko xool ndax mën naa toroxla soxnaam si lu dul farata wala bëti ko di jàng alxuraan su ne allahuma yàlla xool fële. te bu dee jigéen bu baax waaw waaw. mu bëri kii bëgg naa ko tey ah. bilaay mooy avocat jigéen ñi. non kii c'est l'avocat des femmes. <laughs> waaw parce que da nga fu am solo. waaw sa jabar. Mhm. xët ko. waaw saaga ko def ko lu nekk par toog di naafi la. boo nee allahuma. yàlla na fële lay xool. lem ay kaakaam dem yoonam. doo doon xool. mbokk asalaamaaleykum. <laughs> allo maaleykum salaam. soxna si ñu lay ziar. maa ngi delloo ziar bu baax. tur bi ak fooy wootee. man de maa ngi dëkk Tëngéej. Tëngéej. Tëngéej laa dëkk ñu ci woo sama càmmañ bu baax la. Eh, eh, naka. sëñ Moutala sëñ Moutala bi nga invité ma ne sama càmmañ lu baax. sëñ Moutala ndeysaan. <laughs> moom mi xam ne mooy fajal jigéen ñi seen naxar. waaw. ku sa yaru gaj dal sa dënd moo la koy fompal pire vérité borom baax la yal na ko yàlla fay xolom allahumma amin ba ñu xamante léegi yàggut waaye man naa wax ne lépp yàlla def na ci jàmm alhamdulilah nga wax na ma émission def barke di ba damaa xawoon dëdd jàppante nelaw maa ngi ci soog a jóg léegi dëgg la dëgg la <laughs> man a xaama jéem a dugg ziar leen lu baax tëngéej ci fan la tëngéej ville rek waaw foofu doy naa yem. waaw tur moom xam naa dama koy def taala. ok soxna Mbayang sa na solo bu baax. merci beaucoup dama koy suivre nag. yéen a ko moom. waaye du bëri lool ndax man télé moom farataalu ma ko mais yéen a ma tax a dugg tey sa émission bi. ndeysaan. tey mu talaa borom baax la. wallaay borom baax la. yal na ko yàlla fay xolam te yàlla yàggal taxawaay amin allahumma amin. Euh, lépp lu muy def Sénégal nit ñi ñu ngi koy gis képp ku muy jànkonteel itam nit ñu ngi koy bàyyi xel bu baax dëgg la dëgg la dëgg la am na solo. yow miy def émission bi tamit ak sa naataange bi nga toogal yal na leen yàlla fay bu baax. allahumma amiin allahumma amiin ndeysaan ñu ko jaajëfal bu baax a baax mbokk moom wootee diwaanu Tëngéej di nuyu képp koo xamante ni yaa nga diwaanu Tëngéej di ñu seetaan sama dëkku cosaan boobule di la ziar di ziar monsieur le maire El Hadji Daouda di ko ñaanal wér ak gudd fan waaye du ma soxna wari jaxate ma nga fa maa koy nuyu bu baax a baax di ko kontaane di wax ne def leen ni ñoom rek jigéen ñi dañ leen a doy ndax dama lay bàyyi ak ay xam naa ñàkkul ay question yoo <laughs> <laughs> voilà góor ñi sonal nañ leen mm. euh, ci ñenn ñi ma ko sañ a wax waaw euh, te amuñu am na ñi nga xamante dañ koy denc amuñu fu ñu ko jooytoo mm. amuñu xarit yu yuñ ko war a wax mm. euh, léegi man li may laajte mooy est-ce que jotul tamit bu ñuy mayeete bu ñuy takkati sëy est-ce que ku jigéen ki warul toog mu fekkee xam ay wareefam xam lii nga xamante ne moom la ko l'islam wax lii la yàlla wax ak lii la tere pour bu ko defee mu am na ko nekk ci ligne bi. ne ko allo. allo. allo oui. émission sëñ Mourtada <laughs> alo <laughs> waaw man Diabo. soxna si ñu ngi lay ziar. waaw Tamba. Mm-hmm, tur bi ak fooy wootee. Euh, ba. naka. parcelle Fatou depuis parcelle. Fatou Ba. ay ca Fatou Fatou yow rek la ñuy déglu. waaw di leen di leen mm-hmm. bu wér. yal mm-hmm. di ziar suñu mag ñu ngi. kontaan si yow sama fii la pay. yow moom kenn baax na macha allah. kenn du yéen sama rakk yu baax yi. waaw yow moom macha allah. ndeysaan baax. yow moom amin sama rakk ji baax ji. waaw jàmm ak sama rakk ji. yaakaar naa ne yëpp macha allah. ndeysaan kontaan naa si yow nuyu na waa jàmm ji ñëpp xalifa ba ci Jamala wala ba ci Fadio. incha sama fan sa club lañ bokk baax lool bëgg ma jàppale ma si fànn yëpp yàlla seen jàmm yàgg. amiin amiin amiin kontaan naa Fatou. merci beaucoup jërëjëf Fatou jërëjëf Fatou ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Fatou baa depuis parcelle du ma fàtte malado ma nga fële ca Autriche mhm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar soxna bu saar moom tamit jigéen la ci Mourtada Gueye ñu ngi koy nuyu bu baax ma nga foofu ca diwaanu Amérique mhm. di kontaan ci moom waaye kenn du ndeya su aaj ndaa su maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di ziar waa États-Unis yëpp ak sama saareen bi nee na nag bu ma tudd turam <laughs> waaye sañ naa ne sama saareen bi rek sëñ Mourtada ma ba ma bàyyi la nga ne sëñ Mourtada da nga toll woon question bu am solo waaw est-ce que jotul bu ñuy takkati sëy mm-hmm. euh, ku jigéen ki di toog di fekke di xam ware fam parce que mm-hmm. bari na lu ñuy wax si néegu sëy yi mm-hmm. di wax jigéen ñi góor boo deful lii wala comme li nga wax sànq euh, góor da nga ko war a tarbiyu wala su fekkee ki yoo ko mën na laa dugal safara di wax ay wax ya nga xamante ne maanaam yàlla waxu ko binduñu ko fenn ci alxuraan est-ce que jotul ñu toog di fekkati tamit jataay yi wala ñu waa xutba yi ak mm-hmm. ustaas yi mm-hmm. euh, parfois ñu xam suñuy wareef mm-hmm. ah, ndeysaan fatu barkàlla soxna si waaw loolu moom dëgg la soo xoolee ko mel ne maam Abdou Aziz Dabaax radiyallahu moom su daan maye ñaar ñu bëggante moom da daan maye maye gu leer maye goom si amul xiilaa xaala ah ku góor yi bëgg nga mu a wax ne ah ku jigéen ki bëgg nga yàlla nee na lii ku jigéen ki nga dégg mu ne yàlla nee lii ku góor ki boole leen maye mën na noo sëy ba fa tubaarikàlla doo si dégg coow mais am na ñoo xam ne si dañuy lëndëmal jigéen ñi. Mhm. lëndëmal maanaam mooy dañ leen di tiitloo. Mhm. loolu wérut damaa bëgg ngeen xam ko bis na kat bañ koo laajaat keneen. Mhm. wérut ay da ngay dugg àjjana da ngay dugg lii loolu wérut. àjjana jigéen moo fa njëkk a dugg góor sax. porteurs yi jigéen moo ko fa njëkk a ndax jigéen yàlla moo ne ko bu fekkee yaa ngi julli. di woor di añ màkka téye sa sér bi ñëpp xam ne leen si jublu. soo dee dem àjjana loolu góor amu ko. góor neexu la layal. góor kay moom leneen kay. góor moom te pourtant dégg naa ñu ne xam nga yonent bi ban yonent ba xam ndax koppati yi du fa bari. <laughs> ah koppati ah, ah, de xaw ma. Ah. mai 2021 bii de soo xoolee. waaw koppati yaa fa ëpp musóor yi. waaw lu waral eh, <laughs> moom dëgg la parce jigéen ñi soxna si. loolu li war a poussé lan moo war a mën a parce que nit ki nga ne soxna Mbaye da nga ko bëgg moom mu ne bëgg na la waaw mm-hmm. euh, toog si euh, jàkka ji mm-hmm. maanaam euh, sëy ba yàlla suñu borom dépensé xaalis bu bari mm-hmm. bokk yi xarit yi ñëpp ñëw toog baa yi daal di confirmé ñu toog may sëy boobu ñëpp kontaan ñu waxante lu baax six mois ñu ne sëy ba am na problème lan moo waral loolu moo xal benn affaire xanaa xamoo ne góor mm. xinu du taw la xinu seet la mën naa taw mën naa nu mu ti niis xam nga lu ñu koy wax xiin. mën naa xiin lool nga foog ne ba ñëpp daw fatu. mu ne mu góor mënoo koo wax yow. te dafa lëndëm. yeey góor dana crise <laughs> moom su jigéen la mu góor dana crise ah, parce que moom parce que parce que góor. Mhm. mën na laa bëgg lool di la xeexi jigéen. waaw te góor dafa sew dafa yor jikko joo xam ne si surtout. Mhm. dafa mes jikko ju sew la yor jikko ju amu si amu jigéen. Mhm. dañ ne jigéen góor. Mhm. akub dof. Mhm. loo leen tàmmal nay wéy. Mhm. waaw. góor akub dof akub dof parce que góor dafa am baadoo goo xam ne si tey su la merawoon léegi léegi. waaw mën naa toog fee jël téléphone am yëkkati keneen. soo ko defee mu ne da nga am jëkkër am far. tàgga nga doo jur doom ju baax. Oh. loolu lay ngàndaayam na nag sa àjjana mi ngi sama tànk mi ngi ni ma téye. soo ma moom mën naa dem sawara sax. yow nga dugg waaw mën naa dem. ndax àjjana moom yàllaa ko moom. waaw koy yóbbu koy yóbbu ci bërëb day fekk nga mën faa dem. waaye man ngaa man naa laa takk mënal sa àjjanaa ngi nii ma téye. Mhm. mën naa laa di forcer mën naa laa wàcci ah dama lay wàcc yóbbaale àjjana ji am na sa xel nangu ko. Mhm. waaw mais góor lu ko war si jigéen. Mhm. su ko defee. alhamdulilah rabbil alamin tey ji da am sa jabar mere ko. fayee ko man nga mën nga koo naqaral naqaral goo xam ne si man nga wutaat beneen jigéen mm-hmm. ndax góor loolay loolay mm-hmm. su meree jigéen day wut day wataat beneen jigéen man naa sensé profil mm-hmm. am defaat si keneen sensé statam defaat ci keneen wala mu takk sa xarit aka bari wala mu takk wala sa mbokk wala mu takk koo xam ne si sarifa lay doon luyel ko sa koñ ba lépp xeetu xeex la. pour lépp di la naqare maanaam da lay maanaam dalaa laa bëgg a xamal. da laa bëgg a mais nag euh, dugal àjjana da bëgg dugal sawara te du la ah. mais nag démb maa ngi koy wax ak benn nit. Mhm. man doo nekk ci li nga nekk ba pare bëgg ma torturer. dëgg la du ma jeexal kenn man bañ naa ko ba sama lex yi sax <laughs> lu ko jeexal yomb fatara la macha allah. dama ko suuf jaru ko. mais doo ko tey parce que jigéen li mu wax jigéen moo sincère boo bëggee rek bëgg na. Mm-hmm. mais nag dama def ba jeex. <laughs> léegi ah damay dem ba jeex ba nga yóbbu ma bar sax mm-hmm. sama troisième jour dëj ñu génne la Getzner suural la ko ba mu suur nga toog di xaar di recevoir jaxal yi. tey jël sa bët di ko lu di ko tegaat ci keneen koo xamante ni moo war a uuf njaboot bi. ku ko nangu damay toog am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur point waaye boo ko defee am na sama benn xarit bu ma doon wax ni ma. xaaral ma noppi balaa Paa Omar naa maam bul aalu parce que nee na ma léeg-léeg léegi damay jékki-jékki tàng ci télé bi. boo ko defee après ñu compter la. waaw am sama benn xarit bu baax sëy na ñeenti yoon ndeysaan. ndeysaan mu ne ma rakku jàmbur man kaa mu ne ma bonu ma. Mm-hmm. sëy rek laa bëgg. dëgg la jaboot gu baax rek laa bëgg. Mm. mais aw ma chance su taseet. day am góor gu baax. day am ka mu jëkkër ja ka mu mujjee takk jigéenam la ko présenté woon mu sëkk ak moom teraanga bu nekk mu koy takk ko léegi nag problème yooyu jigéen ñi di ko dund si te dafa bari temps yi phénomène la nga présenté sa sa sa borom waaw foofu laa a laale soxna waaw foofu moom maa ngi fay remercier koo xam si damay xaw a tenc ni tur yi sa Amérique waaw donc xam moo tax ma ne góor dafa sew góor ku naqaree layal la góor amul lay mhm. non amul lay parce que maanaam dalay bëgg a dugal sawara te doo dee mhm. xam dëgg dégg wax ba mu déet mhm. parce góor ñi léegi lu tàmm man nañ laa bëgg lool sa suura mariage wala sa album mën a toog ni di seetaan wala sa xarit ñëw fa soo moytu sa kooku lay mujjee ñu bëree bëree bëri dama leen ba bëggutil mais bari na kon jigéen di jooy te moroomu jigéenam ak ko teg waaye nag kenn bu mooy waaye nag kana ko dooleel góor ga voilà door góor la dëgg la góor loo xam ne si maanaam fu mu taxaw du fa jóge yor ay dameem di teg xanaa xamoon ni dana nekk si sëy mm. te bëggul jëkkër ji ah Mhm. dafa def ay 30 ans 20 ans. 17 te bëgg ko. lu mu fay def nag. nit da nga ko bëgg. Mm. fonk ko lool. Mm. am na jigéen ñoo xam ne sii. Mm. dina dem leb banque. jox jëkkër na ko tabaxal kër gi. wala demal nga tukki. wala demal nga def commerce. Mm-hmm. mais nag da nga xool retour bu mu koy fayee. Mm-hmm. day tëdd di jooy. parce que jig góor waxtu woo ko lebele lu baax mais boobu est-ce que ba mu koy def yàlla taxul. mais xam nga jigéen dafa am benn darat bu nekk si mu nekku si góor. Mm-hmm. jigéen su bëggee. Mm-hmm. day bëgg nga arrivé fa nga jëm. day jëm leb kër ndayam wa illaa mu takk ay natt si koñ bi. Mm-hmm. yëkkati jox la bëgg rek nga avancé ba kenn du la. naan mais saa bu avancé. loolu ñu naan ils sont mal payés loolu ngay def da koy fay lu metti benn nga koy fay. da ngay dem gis xaritam takk ko. ba pare du ko sa dóor. Mhm. am na góor ñu bari lu seeg seen aaw dañ ko wax seen ñaareel. Mhm. Mhm. jigéen ñi suñu amee problème rek góor ñaar. dëgg la lu ñu seq ak seen aaw ko seen ñaareel. ñoo dañ koy wax. loolu góor du ko baaxaale. moo tax góor lu koy wax lu koy waay wax na leer. dëgg la waaw na leer de. fu mu neex lay wax tëj su su seddee mu wax. maa la wax fa su seddem wax. 90 628 14 13. buntu baa ngi noonu ngeen jaar ci góor fu suuf sedde mu wax yàlla boo armalu. ak lu man a doon daal fu suuf sedde mu wax. soo defee mu wax soo defee mu wax. armalu armal néeg bi armal lal bi armal yaram weeg yëpp. armalu la bañ jox na dëgg de fu suuf sedde mu wax. mais da nga ñëw sànq ci lu am solo. Mhm. te jigéen ñaa ngi koy def. Mhm. te surtout foofu la leen dalee parce que boo xasee ba dugg ci soo ko dugg ci say mhm. da ngay am bànneex boo xamante ni moom ngay nekkee. Euh, soo demee ba yàlla def nga am benn doom foofu déjà rek sa lu bari dafay wàññeeku. Mhm. foofu nag la mettit bi di commencer. Mhm. yow ku jigéen ki tulagoo ay jooy. Mhm. da ngay toog di nàmpal sa doom di jooy. lan moo xew lu tax sama jëkkër def ma lii. lu tax lii loolu foog nga revenir loo ci nit ñi parce que gis nga tey jii. taaw yu bari tey jii seen rangoñu yaay dal na ci seen dënn wala mu dal ci seen jë. waaw xam nga dañ naan ku naan góor baax na rek sa tax. dëgg la waaye ba sa yaay wax la li ko sa baay def. nga mere ko moo tax mën a na ko. nga ne ko buñ la nee góor baax na. ñu ne la tax. ba sa yaay wax la li ko sa baay def. moo tax mën a góor ku naqaree la la soxna si. la góor ku naqaree la sama benn xarit aji savane maa ngi koy nuyu bu baax ma nga fële Danemark moom ma ko xoon ma xam. <laughs> dëgg de am na jigéen ñu bëree bëri. Uh-huh. dana am quatre. guwaatar ndax xaw ma guwaatar lan koy xaw ma ndax naqar mooy buli waaw naqar boo xam si day dem ba sëf garde te yéen góor ñi du ngeen ko am donc góor moom góor moom non góor gu am guwaatar moom mosuma ko gis parce que parce jigéen waaw lu góor mën a toloore mm-hmm. jigéen mën a koo toloore dëgg la te jigéen góor loolu xale yi naan góor daa bëgg a def bopp Messi bëgg laa def Aline Cissé. maanaam bëgg def yow da ay bëgg a def yow nangam. dëgg la teg sa bopp Mamadou teg ma Mamadi. mu ngi noonu ray sa doole bëgg. Mm-hmm. moo tax ba tax na am na góor ñoo xam si soxna si. Mm-hmm. waxtu woo xam ne si am nañ beneen amaa beneen soxna. Mm-hmm. ñoom si jëmmi boppam. aaw bu leen muñal sa kër ga sax mën nañ ko araamal ma nañoo toog ñetti at duñ seq dara. soo defoon soo doon def micro trottoir am na ñoom si ban géejee xam seen seen seen nu mu seen borom ko loolu sol ëpp na ñettaat te ñu ngi sa sëy ba moo tax ma ne am na ñoom si ñi ngi sëy te bëgguñu neema lu tax bëgguñu lu tax bëgguñu da nga gis bëgg ko lool jaxasoo moom xeeb ko mhm. Mhm. da nga koy gis bëgg ko jaxasoo moom jëf ju sew ji may def ak jëf ju ñaaw ji nga suul ko ak di lay jëndee jigéen goo xam si sa xarit la wala sa alimi mbokk la wala yéen ñaar yi ngeen amoon problème yu yàgg mu ñëw jëlaat kooku dooleel ko sa sa kaw waaw kooku si addina du la ma sa teg fenn du la teg fi gënaaree fanaan donte da ngay toog ci biir kër gi ndax njaboot gi la fi te wala njatt nañ la fi âge bi tax na waaye du tax nga génn kër gi waaye nag sa cofeel ci moom ci boppam mën naa jeex tàkk mbokk mi noonu ci ligne bi foofu la bëgg a waxee allo allo salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah ah soxna Mbaye ñu ngi ziar nanu kasaalika bi ak fooy wootee ah maa ngi lépp tur laay woowee Niger Niger waaw ay ci yow rek la ñuy déglu. ah seen émission bi am na solo de Abou Bilal ñu ngi rafetlu duggam bi moom dañ koy bëgg suñu soxla. non non Kouthia foog ma invité ko. waaw waaw invité ko ñoo foog ma invité ko incha allah. invité ko ñu ngi xaar loolu. bu soobee yàlla. day rafetlu émission bi rek am na solo loolu de moom chaque samedi dañ koy teewlu fii ci dañ koy teewlu fii ci Niger ah? am na solo lool. d' accord chaque da ngeen koy suivre ci Niger. waaw maa ngi nuyu waa Niger yëpp. waaw dañu nuyu bu baax sa sa waa yooyu nag nee ko nee ko góor ñëpp góor ñëpp góor ñu am na góor ñu baax. <laughs> ah mi ngi lay dégg waxal ak moom. <laughs> ah waaw sa waa yow. waaw. ah góor ñi am na leen baax la de. waaw waaw waaw xam nga ñu si baax. ah yow kay da nga da nga da nga yor see xeer rek di xaaj. <laughs> baax na de. ëpp naa de. ah koy xaaj le. waaw nekk mu waxal ñu suñu baax a baax ñun ah ñu ne nii des fois ji ñu def ñuy métti de. <laughs> li baax jarut la waxtaanee li fi safaanoo la ñu waxtaan ndax mu ah. baax. na wax li baax nag encouragé ñi baax. <laughs> yow ana soxna si. ah ma. Ah. ah looy xaar ba léegi. ah man maa ngi xaar rek xam nga sax sama benn gànnaar xaar quoi Modou Ngingue. <laughs> Modou Ngingue ngay xaar mu jiitu la. waaw ah, moom judo yàlla ko moom <laughs> ñoo gën kontaan ci yow. baax na di kontaan ci waa Niger waa Nigéria waa Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ziar nga xamante ni mooy ambassadeur u foofu ci Côte d'Ivoire euh, maa ngi koy nuyu bu baax a baax Kader Agne di kontaan ci moom mu ngi noonu. nee na ñu waxal ko ay baax baaxam góor yi <laughs> mais nag euh, euh, Hadj Mourtala dafa am question bu ma toll woon sànq. Euh, ci diggante jëkkër ak jabar man xamatuma ko sax mais lu am importance la euh, xaw ma fi fi may waxee fi jooyloo sa jabar la euh, période boobu nga xamante ni taaw yi tey ba pare taaw yi dañuy dem ba màgg jëla xeen seen papa te li ko waral du dara lu dul mm-hmm. comportement bi nga xamante ni gis nañu ne moom la ñu màggaale Mm-hmm. seen papa di ko doxalee ak seen yaay mm-hmm. mais bu dul dara itam xol bu tàng ba nga xamante ni moom la leen yaay daan nampale mm-hmm. da leen di topp ñu nekk ay yoo xamante ni tey te da ngay taxaw naan sa doom doo fi baax doo fi tekkee waaw xam nga baay moom mun ta ñaanal doom ji baax mënut a ñoonal doom naan ko da nga tekk du du tekk loolu moom waxi lii la rek si kaw baay ba aw yoon bu fekkee bàyyi la boo xam ne si. Mm-hmm. kul loo xam ne si lu ko lislaam wax lépp mi ngi koy def. Mm-hmm. am na ñu bëgg seen njaboot nag. Mm-hmm. am na góor ñoo wax macha allah. di si profité di si nuyuwaale seen jiilu loo. ndeysaan seen jiilu loo waaw eh, sa Espagne. ndeysaan di doomi si ñaar am moo xalifa loo yow kay liy tax nga bëgg Espagne. waaw waaw waaye nag góor ñi dëgg nañ de. <laughs> góor Espagne góor Espagne. Ah. barke <laughs> ko a ko dégg dégg <laughs> waaye sama sang ba Issa bokk ci ndéygay Samb yaayu Mbaas Issa Diène ma koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ziar sama bosu bopp moom itam dëpp ak Salaba. Euh, Sélé Gueye Birama ak Demba Gueye Birama Birama a alkaati kaay eh, moom bokk ci benn yoon moom. man tamit sama bos de Aliou ñu ngi Ali Baba borom Tourinha borom Sarago saa bokk ci. fédération des daayira Tijane. Eh, ca Espagne eh, tabarkalla macha allah. déedéet ah, ku a xool sax xam ne xiifu ah, ma. ak man rafetlu ma. ayca <laughs> <laughs> maanaam lan la woon sax. Euh, góor góor Espagne yi nga xam ne dañoo sonal jigéen ñi. waaw xam nga ñooñu. Ah, man loolu loolu soxna Mbaye du sama wax li may jeexalee parce que temps bi jeex na. soxna loolu bi nga xamante ne day taxaw di tëkk doomam. Mhm. nii nga ma def doo tekki. Mhm. Mhm. xam nga li gën a métti ci këru àddina jur sa doom yow mii yaay toog ci kër gi sonn fi. baayam taxaw naa kon say morom dinañ la raw. ndax lan iñaane nga ndayam. jéppi nga ndayam suur nga ndayam wala sax bokk dëddale mm-hmm. nañ la ak ndeyam mm-hmm. ba tax na daray njabootam safatu la mm-hmm. taxaw nga tax nga taxaw naan sa doom doo tekki ndax fi nga jaar man te tekki yàllaa ko yor ah. xam nga dañ ne góor moom kum gën a nopp ndayam ñaanal doomam waaw waaye nag yàlla ay nangu. Ah, moo tax ma ne loolu maanaam. Ah, xam nga suñu defoon kon kon lu yéene nit mu kon kenn du toog fii. billahi góor moom ku mu gën a nam ndayam rek lay ña ku gën a nam ndayam lay ñaanal doomam. dëgg la am na jigéen ñoo xam ne sii. ay jàmbaar lan ay fàkk tëdd lan mhm. bëri na société bi du jeex mhm. am na jigéen ñoo xam ne si mhm. giñ naa ko si rabb samawaati wala ardi li ñuy dund si seen biir kër suñ la ko waxoon asamaan si mooy fekk si suuf xajul ci émission si ñaawteef xajul ci émission si xam nga ñooñ ñoo fi jër ëllëg doom ju baax dëgg la ñoom ñoo ko fi jur mais yow nag boroom kër gi mën ngaa indayam di ko ñaana sax xol boo xam ne si tegoo ko fen dëgg la loolu ñaan ko yàlla du ko gis sax ba kay nangu. dëgg la waaye bu fekkee nag waajur wa daa teg fa mu war a tege. Mm-hmm. loolu soo ñaanalee doom ja. mën na koo dal voilà. dëgg la waaye koo xam ne si nag en rek moo tax mu def ko. Mm-hmm. loolu moom du jëriñ dara. du jëriñ dara beneen bi mooy am na jigéen ñoo xam ne si. Mm-hmm. ñu ngi si Amérique gii. benn ànd ak seen i jëkkër. xëy na am am bi tibutoon noonu. mais ñu dem ba xam am am bi gën a bëri loolu macha allah fa tabaarikàlla ñu ngi lekk lu baax ñu ngi tëdd fu baax ñu ngi naan lu baax. Mm. mais am na góor ñoo xam ne si suñ la joxee weer wi na la sa dépasse ngi nii. Mm. pare nañ si yow. am na góor ñoo xam si xamuñu weer dara ñu jëkk ci 500 mille na la mbay nga am. te jigéen ah jigéen lu ko dàq lépp si àddina dëgg la. gado dëkk takkusaan rek jox ko 200000 la ko am. nga xam gado bu jugee Alioune Sall wax na na da leen maanaam jigéen jigéen dafa neex am lool. dëgg dafa neex am. dëgg la mais da gis jigéen goo xam ne si soxna si. mu mm-hmm. ngi si kër gu baax di lekk lu baax problème ya mi am. su la mm-hmm. ko waxoon barke borom Tuubaa Mbàkke suuf si dana fekk si asamaan si. dëgg la am na loo xam ne si ne dama koy baaxee góor ñi. waaw ko ko dee def. ak foo mën a bokk man loolu samay nekku si ak yaa mën a xaw ma koo mën a doon si addina mais doo si ba sa jël njariñ te bala ngaa dee sa taat dana tàng jër mooy nit koo xam ne si day nàmpal doomam. nga toog du tuurloo ay ronkañam te tegoo ko fenn. tegoo ko fenn fenn lu dul sa naf sa bakkan bii. barke borom Tuubaa Mbàkke bala ngaa dee suñu borom dana la ko wan. ak jigéen goo xam ne sii. dalay ñaanal yàlla. ndax suñ lay takk am na rabal boo xam si dañ la koy muurloo. Mm. rabal boobu jigéen ñi njëkk ña suñ masaan mere seen borom kër. ba tëdd ba gudd jullu ñaar ràkk seen digg néeg li ñu toog mm. wax ma si koñ si digg bi li ñu toog ci digg bi suñ jëlee rabal boobu suñ ko sàngoo waaw barke rasulullah lu ñu la ñaan yàlla def ko am na ñu ma naan numéro Serigne Mourtada dañ ko soxla mm-hmm. ndax euh, mooy docteur yu jeeg ji mm-hmm. euh, ci kaw ak ci suuf macha allah fa tabarakallah bugguma woon a dugg ci détail yooyu ndax comme dañ ñu ko tere mm-hmm. euh, dañuy waxtaan ak moom ci jamono ci li nga xamante ni moom la jigéen ñi dund waaye nag li tax mu nekk avocat jigéen ñi mooy macha allah fa tabarakallah day yëngu ci wàllu ñaan am na ñu ma ne euh, naa ko sarax jox leen seen numéro baal ma jox leen numéro bi. 77. Euh, 584. Euh, waaw. 31 41. 584 31 41. may souhaité bu baax a baax ki nga xamante ni mooy Ismaïla Diagne di doom ci Adja Amina Diagne ak Alaaji Serigne Diagne. macha allah fa tabarakallah ñu di ko wax jàmbal maa ngi koy nuyu bu baax di ko souhaité joyeux anniversaire par anticipation suba la anniversaire bi mais macha allah dafa nekk koo xamante ni jaañ boobu le moom itam kenn la ci man incha allah dinaa ko invité fii ci plateau bi euh, di doom ci Adja Amina Diagne ak euh, ki nga xamante ni mooy Alaaji Serigne Diagne jamono bii mu nga ca diwaanu Mariste ma ngi koy souhaité joyeux anniversaire di ko ñaanal longue vie santé de fer bonheur et prospérité di jaajëfal bu baax a baax Ember Maris Ndiaye ci euh, brodé bu baax bi ku ko bëgg am rek brodé coton yi war ko ci 77 260 369 25 02 77 369 25 02 moo jaar fii Cheikh Tailleur xam ngeen ne Al Amine Couture fële ci Yoff Layeen ba tey jaarat fii nday dama lay bàyyi nga tàggoo après ma ñëw ak ñu ñëw ak sëñ Mourtada ci li muy tàggoo ndax temps bi mi ngi jeex takk takk takk mm-hmm. rapidement <laughs> dëgg la soxna Mbaye xanaa di la santaat rek di la gërëm bu baax sa invitation bi mm-hmm. euh, di sant bu baax sëñ Mourtada ak euh, Abou Bilal euh, mm-hmm. Koutia di ko remercier ak suma yaay Thiaba Thiès artiste comédienne bu mag bi ak Fatba bi génn képp kamte mi ñu doon suivre ci rek euh, thème bu am solo bi nga xam te ne indi woon nga ko tey mhm. euh, mu mel ni rek euh, li ñuy wax li duuf si nag bi yëpp xaju ci xaju ci cin li bu ñuy wax fii ba suba rek problème yi nga xam te ne jigéen ñu ngi koy jànkonteel fi mhm. a da ngaa baax te gën <laughs> kon ma bu baax di la gërëm di remercier di la wax rek ma koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal carrière bi yàlla na ko yàlla yëkkatiwaat maam Abdou Aziz Sy dafa wax lu am solo dafa wax ne garab day tooy ba mu yàgg mu wow mhm. wow ba ne ruseet ba ñu yaakaar ba ñàkk ci yaakaar waaye mu jékki-jékki jebbiwaat nda yàlla na la yàlla jebbil te bañ laa rusalati benn yoon macha allah yaa ngi ci yoon wi abu bilal dénkaat naa la nday fay bu baax a baax ni nga dénkee woon ak ñi nga xamante ni mhm. ñu ngi wëlbatiku di leen dégg tey jii ci média macha allah fa tabarakallah waaye nday so ak kenn du yow maa ngi leen nuyu bu baax di la ziar mhm. sëñ Murtada lan ngay tàggu jigéen ñi ak lan ngay digal jigéen ñi may leen ko ngir ñu mën a conserver seen i sëy parce que dégg naa bagages yooyu da nga yor loolu moom dama koy sàcc sama directeur bagages yooyu wala ci suuf la. waaw waaw am na yoo xam ne si maanaam day yar góor daal. day yar góor ko tënk foofu day yar góor lool. Mm-hmm. day yar góor ndax góor tamit su ray garag bajantu. Mm-hmm. moom naaru a mm-hmm. da nga koy yeew rek. waaw. da nga koy ah. <laughs> déggal li muy wax déggal li muy wax de. Ah, loolu ñu naan rek rek li mënuñoo ànd góor su rey gerek du réglé. waaw waaw bu reggee bajantu. il faut que mu yëlbu mu tañaat waaw waaw d'accord Euh, soxna si kon wax dëgg fa yàlla moom xam naa ne mais mbaa ñibbee goo Touba euh, maa ngi fi un peu de yi moom la attaqué moom <laughs> dinañ ñoo xam ne ay yaa leen fi nekkal ndeysaan fa tabarakallah ah soxna ma tàggatoo sama am di jàmm yi mhm. ndax tamit wax dëgg fa yàlla moom dañ ne miskit ak moom ku ko macc ku mhm. ko jam macc say baaraam dëgg la waaw di nuyu bu baax mhm. sëñ Aliou Guèye sëñ Aliou Guèye di doom si sëñ Moustapha Guèye jëm weli di sëtub Cheikh Adama Gueye mhm. di ku baax mhm. daara ju rëy la yor mbuur di jàngal alxuraan ndeysaan alxuraan rek ko ñor mhm. ku baax lool wax dëgg fa yàlla macha allah fa tabarakallah ku yiw ku bëgg lu baax ndeysaan waaw mën a jàngale lool macha allah fa tabarakallah di nuyu Baye Serigne Ñang dëkk Kër Ñang waaw euh, di sëtu euh, nu mu tuddati dëkk Touba Kër Ñang Kër Ñang waaw xam naa bokk la ci soxna Ñang bu sëñ daal bu sëñ Abdou Khader moom Kër Ñang la dëkk mhm. sëñ Ahmadou a Ñang mhm. mooy maamam ndeysaan waaw di nu mu tuddati góor Sukayna Fay mhm. di yaay Serigne Cheikh yàlla na yàlla dimbale bu baax amiin amiin nag euh, soxna Adja Soda Diagne bëgg fàllu sa cité Adja Marème Adja Marème waaw fii si Ndakaaru Ndeysaan di nuyu Soxna Ayda Diagne. Mhm. Soxna ay Ayda Diagne moom dama si taxaw. Ndeysaan moom Italie la nekk. Ndeysaan rapidement ndax ñu may signalé ne temps bi jeex na Soxna Ayda di ku baax waa jilee. dëgg la koo xam ne si ku ko nekk Italie rek. Mhm. war ngaa roy si moom si jigéen. Mhm. goo xam ne si maanaam place góor la taxawee. Mm. baax lool. Mm. di dund aw ñaqam. Mm. di as góor lool. ndeysaan nangoo liggéey. wax dëgg fa yàlla moom soxna Say Sarr. moom soxna Seynabou Sarr. Seynabou Sarr ak Malado. ak soxna Malado. di nuyu bu baax a baax macha allah fa tubaarikàlla. yow yaa xaritu jigéen ñi. <laughs> macha allah rabbi di nuyu di nuyu bu baax sëñ euh, Assis Baara. Mm-hmm. moom moom moom soxna Mbayang ba may ñëw iPhone 12 bi la jëkkati jox ma ko. men waaw sëñ Abdou Aziz Baara. sëñ Abdou Aziz Baara. mais mais dégg ñu koy way. moom ci la xale la nag tout tànk la. Uh-huh. moom sëtu sëñ Baara la si waa guy mbind la. yàlla nañ ko xam. dem bii ba mu yëgee loolu daal daa ànd man ba si Sacré Cœur 3 gii. Mm. yëkkati iPhone 12 bii. iPhone 12 waaw ni ma sëñ Mourtala bii ngay daloo moom. wax dëgg fa yàlla am yëkkati xaas bu bëri. kooku sëñ Baara mooy maamu daa baax ma macha allah noonu lay mën a mel yàlla nañ ko xam sëñ Moustapha Ndiaye <laughs> Moustapha Ndiaye sa mbaaw ndeysaan ak euh, euh, DC waaw DG soxna Marème soxna Marème Sow Marème Sow waaw soxna Marème Sow laa waroon njëkkee waaw mooy góoru sëñ Lamine ndeysaan sëñ si soxna Waalo mooy waajuram mm-hmm. sëñ Moustapha Diawara waay mooy borom mooy mooy waajuram mu góor jërëjëf sëñ Lamine nekk samba jërëjëf sëñ Mourtada may nuyu bu baax a baax Seynabou Sarr mhm. di doom ci Ndey Ndiaye dëkk fële ci diwaanu Thiès mhm. ma koy souhaiter joyeux anniversaire Seynabou Sarr doomu Ndey Ndiaye euh, sama takk der boobu le macha allah maa ngi koy souhaiter joyeux anniversaire mieux vaut tard que jamais c'était le samedi passé mais maa ko koy souhaiter bu baax di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla yokk garaat yi di yokk mandarga bi li mu namm ci way juram mu def ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa ni euh, say xarit samay xarit lañu. samay xarit say xarit lañu. waaw euh, ku li xame naa jaalo. waaw euh, sànniwaatal gars yi numéro yi parce que gis nga ñu ngi may woo ne ma numéro Mourtada numéro Mourtada. parce que nag dafa nekk sunu défenseur. jox leen joxaat leen numéro bi rek rapidement. Ah, euh, numéro bi waaw mhm. euh, xamul sax numéro am nag boo ko woowee ci téléphone bi day day xeex parce que man moom li koy metti mooy dégg ne góor def na dara jigéen. waaw loolu mooy li nga xamante ni loolu moo koy metti mu taxaw doon seen défenseur nag ki saayir ak ci baatin yal na ko yàlla jàppale. macha jàppaleel ma sama soxna Ndeye Faye mii ci barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa am na fi place léegi dañu jëleetul talent li ñuy jële mooy taar li ñuy jële mooy euh, siiw mm-hmm. li muy li ñuy jële mooy euh, daal la yàlla xam doy na mm-hmm. waaye nag bu fekkente ni talent rek ak ku la waxtaanal man dama bëgg gise bi nga indil ma ko fii gise bi waaw sama concept la de maa ko moom waaw ah, dañ jëli artiste bi maa ko moom de loolu foog ñu présenté ko Abdou Ndiaye waaw ah ma jéggal de am na fu mu sin foog mënu ma ko ñàgg nii xanaa une minute rek wala benn seconde waaw ah, sëñ Cheikh Fall Gueye sëñ Cheikh Fall Gueye mooy sëñ Moustapha Mbouss ñu ngi koy nuyu bu baax di ah, ko Cheikh Fall Gueye la kooku moom sëñ Muntaxal Basir moo ko yaral si loxoom am na solo waaw ku baax waajilee donc di am murid saadix concept gis-gis dem seeti ji ak gise bi gise bi ah dem jël sa fans dem jël sa yóbbul artiste bu muy yuuxu jooy loolu gis naa ko ba tàyyi nga doon ko def macha allah talent baa ngi fi te jot gaa ngi fi Abdoul mm. bàyyi loolu xel bu ko kenn piraté <laughs> donc euh, ma koy jaajafal bu baax a baax jaajëfal ki nga xamante ni mooy Imbert Maris Ndiaye mm-hmm. waaye Aboubacar Sadikh Bey mm-hmm. maa ngi koy nuyu bu baax a baax DG bu port mm-hmm. mm, di ko ñaanal jàmm ah. Euh, bu wax ji réyee du moom waaye bu jëf ji réyee moom la dans la discrétion lay dox moom ak soxnaam soxna Ndey Njaay fekk baax ci diwaanu Tëngéej ñu ngi fii ci Almadi maa ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi dégg baax baax yi ñuy def yal na leen yàlla jàmmal jàmmal mboolem koo xamante ni àndoon nga ak ñun ci émission bi waaye tey daal dama jël lépp may ko ki nga xamante ni mooy Barham Diop nekk sama transitaire bi fii ci diwaanu port tabarkàlla macha allah kenn du moom yàlla na ko yàlla yokk ba mu yëg ko yokk képp koo xamante ni àndoon nga ak ñun di ñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen